yoroon métier nag nekk tailleur euh, dañu détruire vie bu Papito dañu yàq vie on a détruit sa vie jiñ ko ci lu ñàkk solo délit duli wala benn titre obs bu mu jël nang ak kéeku mm-hmm. ñu tëj ko presque six mois ci kaso bi ah, mu génn nekk soutien de famille juddoo ci famille boo xamante ne aussi seen loxo jotu seen ginnaaw te gis nga euh, booy waxtaan ak ñi nekk prison génn ci dafay am lu mu benn benn état d'esprit bu muy def seen bopp ba mooy loolu bu ñu génnee te pour ñu mën leen intégrer waat ci société bi ba pare dafa am mën a bët ni société bi du xoolee ba lu ci bëri danga koy jéem après mhm. mais foo jéem du sotti du sotti ba pare bu ñu jàppee ne da nga ànd ak opposant bi fi ne mhm. say mbir du sotti mhm. loolu yëpp mu nekk ci moom muy jugo ko daanu jugo ko daanu ba amatul espoir comme yeneen jeunes ne xaaral aussi comme gaa yaa ngi dem di egg naa dem demul woon pour dee mhm. dafa demoon parce que dëkk bi dafa metti mhm. dafa demoon pour dimbali ay waajuram parce que amatul espoir comme temps d'autres jeunes ñu ngi may wax ay étudiants yoo xamante ne aussi dañ des dañ dem des des ci géej gi ah? ay ay ay enseignants ah? loolu dafay am benn réflexion bu ñu kii rek papito yàlla ko yàlla yërëm. am na sa sëriñ ah? sama mbokk sëriñ daara yi sama leen absolument <laughs> man damay ñaan euh, aussi papito ñu ñaanal ko yàlla yàlla yërëm ko. mais aussi euh, mu am lu ñu jàngal ñun ñëpp. bu ñu demee ba ci réew ñaari mbécc ñoo fay dox muy Jakarta ak Bongo maan réew mi. ku dawul Jakarta xëy nga maas da ngay ruube quoi. non li muy wax nii dama gis dama gis léegi réew mi tendance bi am léegi mooy koo gis mu ngi jël ab jiin jiinam taggat ko nangam sàngam yor bongo ah euh, di wër xew di tëgg. ma xool boo yi ma xam ne dañu amul liggéey. Mm-hmm. marchand ambulant da lal fi fi fi fi fi nga ko yaakaar ñu ñu la mécanicien nga xëy. jàng sa métier ba mu mokk dem ci garage punkal jóge fële wala benn kilifa la ñuy wax noonu yor ne suuf maa ko moom ñu dégagé leen saa yi réew mi dafa metti dafa metti ba pare en plus euh, dañuy toog ñu ne su may dégg ministre de la jeunesse wala état di wax di bàkku naan ay emploi c'est pas vrai yan emploi lañ fi def où sont les emplois yaa ngi koy wax sànq Ousmane dafa am looy looy sol muy marron beige mu mën a jot ci yenn financement yeeg yenn affaires yi ah ils ont appauvri la société bourse de soli de sécurité sociale pour lan la. loolu day wane ne askan ci ñàkk ba ñu leen dimbalee vingt cinq mille par mois wala par trimestre. Mhm. loolu mooy loolu loolu aveu de taille la mais ñu ñëw ci beneen beneen beneen fànn ñu gis tey jii ndawu Sénégal benn enquête génn. wax ne presque xaw ma nangam pour cent des sénégalais lu ci bari jeunes yi c'est c'est des jeunes de dix neuf ans ak yooyu. man d'accord ma sax ci recensement boobu biñ ne jigéen ñëpp góor ñi laa ne c'est pas vrai. waaw man nag loolu tiitu ndax réew mi réew mi Sénégal réew mi Sénégal boo ñëwee au niveau néonatal. ah boo ñëwee au niveau des accouchements. Ah. 80 pour cent des accouchements lu ci bëri. jigéen lañ de ay jigéen lañ. non mais góor ñi yokk ci maternité yi bari nañ góor ñi léegi ñoo gën a judd. xam nga non non non jigéen ñi. loolu yu bëri ay góor lañ. loolu yow mii ci koñ yow mii ci koñ bi ngi di ngénte yi xam nga ba pare boo xoolee université yi. <laughs> yow da nga ko laaj wala paay tudd paay tudd la ko laaj wala ku mu xam nga xam nga xam nga xam nga xam nga boo hmm? xoolee université yi. rega ah, man de juróomi mhm. ay jigéen. non loolu boo xoolee ci mbedd nga moo tax moo tax def nañ xam ñooy ñan ñu. ñu recensement boobu moom vraiment dafa xaw doy waar mais booy xool université yi. école de formation yi. Mm. mais bu ñu wàccee da nga naan mais jaratu ñu naan émancipation de la femme. dëgg jigéen ñi rek ñoo fay nekk. tubaarkàlla est-ce que comprendre mm. euh, booy xool dese yi. Mm. yi. góor ñi ëpp ci ëpp góor ñi ëpp góor góor ñi ci ñii dee ci géej gi ñii dee ci nangam boo xoolee góor ñi ñoo ci ñoo ñoo ciy ëpp. comment ça ñu def jigéen ñi ñoo waaw yow demal demal buy rek nga laaj leen ba xam ndax góor ñi ëpp léegi nag fi góor li ma ci yokk Moustapha mooy dans un dans <laughs> un pays sérieux dans un pays sérieux y a des priorités état bi xam nga yaa ngi lancé sànq président Macky Sall message yàlla la dégg parce que il joue ses dernières cartes tey jii sorti bi war a def mooy sortie bu xaw a honorable parce que vraiment amee nañ àq sénégalais yi douze ans de pouvoir tey la ceeb gën a cher diwlin cher liggéey amu fi. Mass moom su ma ko déggee dara doxul ci réew. non non xam nga nga baal ma rek nga baal ma. vas-y vas-y terminal Mass. xam nga xam nga xam nga bu souvent souvent yëpp mënta weesu. ngay dem ci hôpitaux yi di gis souffrance bi sénégalais yi di daj ku ci feebar doo boo amul xaalis doo faju mm. ngay gis tey ji ndaw ñoo xamante ne inscription. Mm. pour dem jàngi rek. nga am ñetti doom budget budget la. insister de mënu mu mënuñ ko. boolewaale ci woyofal bi. day gis tey jii. woyofal woyofal biy dugg. bëgg rey sénégalais yi ñuy sàcc sénégalais yi. Mm. les sénégalais suuf sa yi. ba pare ñu ne la non ñun defar nañ fi teer mm. terre bu ñaata bu mille milliards presque. presque je dis mille milliards presque. BRT gi waaj a daw. BRT gi nii ñaata milliards la. waaw ah. ak ay poxotaan. on te de de de stade bi ñaata milliards la. arène nationale ñaata ñaata milliards la est-ce que am na ci benn buy intervenir ci éducation ci santé wala ci vécu des sénégalais <laughs> est-ce que am na ci. tabax na fay université. tabax na fay hôpitaux université. Ah, xam boo koy déglu tableau bu ñuul kukk lay tegal xam nga maas gars yi nañ may sax ay porox ndool waaye da ngay dóor rek. xam nga lu tax xam nga lu tax. maas maas xam nga lu tax. man peut-être dama bokk ci benn <laughs> formation non peut-être dama bokk ci benn formation Sidy Lamine dama juddoo ci da bokk ci formation Sidy Lamine ma am temps ma am chance fekkee ko Sidy Lamine daan wax na l'information c'est le train qui n'arrive pas à l'heure hmm. l'information de train bi yegsi na loolu de information hmm. président mënut ñëpp naan ko mii baax na di baax na déedéet foog mu am ñu naan ko président fii baaxul. mais ñi naan ko baaxul sax ñoo koy. waxuñu ne waxuñu ne on peut pas être nihiliste hmm. dara. def na fi ay tali. man Birame Mbodj dama ko dégg keroog. Euh, muy wax ci télé bi ñu ne ko euh, euh, ku xam lan croissant. croissance <laughs> waaw kii de croissance mu ne croissance du croissant kenn du ko lekk. wax na dëgg. nee na croissant. te ñoo ñu naan PIB nangam. sa mm-hmm. mi ngi ci set sangam. mais croissant du croissant kenn du ko lekk. Mm-hmm. gis nga ñi nit ku xiif. nit ku xiif. toll ci benn niveau bi. nga di ko wax ay courbe de croissance ay nangam économie du la du la du la dégg. li ñu bëgg mooy li ñu bëgg mooy. Mass waxtu bi li ñu bëgg mooy ah, daaneel foofu rek mooy. voilà daaneel foofu rek mooy mooy wax ak président njiitu réew mi. Mhm. mu xam ne sénégalais yi bañuñ ko mais doxalinam à travers la justice à travers institution yi nga xamante ne moo fi nekk ñoom lañu ñu d'accord li ñuy doxee. mais nekkuñ fi pour bañ benn njiitu réew parce que ñoo ko fal. Mhm. bu ñu sañoon mu réussir Sénégal am jàmm. Mhm. mais li ñu bëgg def mu li ñu bëgg nekkee ni Sénégal il faut aussi ñu revenir à la raison mhm. Ousmane Sonko c'est un Sénégalais comme les autres Sénégalais ñeneen ñi nga xamante ne aussi ay ay ay leader de parti lañ ñu bàyyi leen ñu mën a wër Sénégal comme ni ko Amadou Ba di defee dox def merci merci Mass euh, pour point góor jigéen bi imam rek laa si interpellé après ñeneen ñi tàggatoo ñu yëkkati jotaay bi mënumaa tant que religieux en tant mhm. fii koo xam da ngay xeex ay valeur mhm. te ci wax li ma ciy wax rek wax bu gàtt la xëy na waxaat lay doon ndax luñ ci waroon a wax rek. Mhm. suñ kilifa yi wax nañ ko ci. Mhm. parce que wax jëf moo ko ëpp doole. Mhm. te suñ kilifa yi fi nekk ku mel ni Serigne Mountakha ñu ngi koy ñaanal yàlla bàyyi ko fi. amiin sëñ Babacar Sy Mansour. amiin Cheikh Mahi ñas